you. mbokk internet yi ñu ngi leen di dalal ci biir limametti.com di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp dañuy ñëw ak ci information actualité bi nag di concerne rek nga xam ne moom mooy Abdoulaye Sylla di patron ki fi nga xam ne moom mooy Ecotra moom nag xam nañu homme d'affaires la bu mag fi nga xam Sénégal moom nag problème la di am problème construction dafa daal di construire maanaam dafa commencé benn chantier fële nga xam ne moom mooy Saly Portudal mais chantier bi ci li ñu expliqué chantier bi nekkul en norme maanaam wuyuwul ci norme yi nga xam ne war na li nga xam ne moom mooy chantier cos ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàll woowu ñëw ngir interpeller ko wax ko ni moom nekkul en règle moom nag ci li ñu xamal daadu leen leen faale parce que dafa jàpp ni moom proche ki nga xam ni moom mooy Marième Faye Sall ak président Macky la mu continuer di def li nga xam ne moom mooy chantier wam dem nañ ba ki nga moom mooy Abdou Karim jot daal di ñëw wax ba ki nga xam ni moom mooy Abdoulaye Sylla daal di bàyyi li muy def mais dafa daal di tenir tête ñi nga xam ne ñoom ñooy force de l'ordre yi ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi habilité ci mbir moom dafay xam ne moom mooy chantier par la force nee nañu nag nga xam ne moom mooy président de la république Macky Sall dem na ba jot ci wax ji bi mu jotee ci wax ji daal nay mer ba futtu jëmale ko ci kooku nga xam ne moom mooy Abdoulaye Sylla ba daal di ordonné ñu daal toj fi nga fële nga xam ne moom mooy chantier fële nga xam ne ñeneen di nañu ñëw daal di toj moom taxaw na ngir opposé ci waaye taxul ba force de l'ordre yi bàyyi ko ci daal di nañu ñëw daal di saccagé li nga xam ne moom mooy chantier daal di toj lépp lii nag di benn information boo xam ne jot nañ ko ci Abdoulaye Sylla nekk benn homme d'affaires nekk proche bu baax ci ki nga xam ne moom mooy Marième Faye Sall ak président Macky Sall continue leen di topp limametti point com ngir information yi ndax information fàtte moo leen di mën a permettre ngeen mën am xibaar yi foo leen mënti toll ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ci bi limametti point com ak yeneen actualité